waaw samedi mooy l'an dernier màggal ci moo nekkoon nga xamante moom mooy bien moom mu ñëw aw waat ci nga xamante moom mooy commentaire bi muy muy lu doy waar loo xam ne gis ngeen ko ah, jam naa sànq pour jëmut élément sax pour jëm koo laaj mais fee wax fa dafay jafe maam waalo kaay parce que kaay moom it maam waalo dina ma du ñàkk mën ci ay kàddu ama tam ndax mbir bi li ma naan maam waalo kaay ñaari baat maam waalo kaay ni passe kaay maam waalo nuyu naa la naa la faja mbaam nga jàmm mbaam naa jàmm bu baax kay tey sa teewaay ci tribunal bi lu ko waral a ah, xale rek problème bi xale rek moom ma fi indi tey waa ah, nan nga jàngatee mbir mi parce que tey c'est la première fois lu mel ni am problème am ñu gis ñaari oto bip yab leen indi leen ba pare escorté leen. ah yal na ci jàmm njëkk yal na ci mujj rek moo ci ëpp solo parce que lii mitit bi mitit bi Sénégal gépp la wàcc képp kuy sénégalais rek lii mitit lu nga ko maa ngi ñaan yàlla yàlla na suñu borom yàlla rafetal lépp daal ci bàkk Seydina Muhammad ah, tey bi nga yëgee mbir mi am na tey euh, en tant que être humain di doomu aadama tey lan nga yëg parce que àdduna bépp la métti. waaw àdduna bépp la métti parce que lii dafa ñaaw. lii nii tey dara jaru ko lii lii am fii tey dara jaru ko ci àddina du alal moo ko jar du xaalis moo ko jar du succès moo ko jar du dara moo ko jar lii nii dara jaru ko ci àddina parce que lii dafa ñaaw te dafa métti Aziz Dabala deful kenn dara amut ak kenn problème amut ak kenn histoire xulawut ak kenn lu dul ambiance fu mu nekk nit ñi di ambiance ñuy reetaan loolu nekk ñëpp mais nag lii la yàlla dogaloon xañ na nag lii dafa jiitu ju doom mais lii ñaaw na te métti na képp Sénégal kuy Sénégalais rek lii métti na la kuy sénégalais xale yi ndaw yi sax li da leen a metti sama doom ji wur na Serigne Touba fan yëpp mënut a nelaw feebar sax la ko def ñëpp a feebar kenn wérul kenn lekkul kenn naanul barki allah ji Fall lii dafa ñaaw torop waay. non xalaatuma ko ci ba léegi fi ma waxee nii xalaatuma ne lu ñaaw sax dina ko dina ko ci def parce que Nabou Leye xamee wu ma ko dara lu ñaaw man lu baax laa xamee Nabou Leye xamuluma dara Nabou Leye loo xamante ne nii day war a tax. ma taxaw di saalit maa ngi njott rek di sama njott bu rafet rek ma maa amagun instant yi nii wóor na yàlla jàkkaar njott boobu nga am moom lañu am ñun ñëpp xamagun mën nu la wax kii la mën nu la wax kee la ñun ñëpp dinañ xaar mooy yoon def liggéeyam mën nu teg loxo ñun ñu kii la te amul sox droit bi mais daal li wér tawur mooy jëf ji ak ku ko mën a def jëf na lu ñaaw ku ko mën a def def loo xamante ne lii xanaa li histoire la boo xamante ne nit dootu ko fàtte ci àddina histoire la boo xamante ne nii du toog lu mat euh, deux jours ta doo ko fàttaliku histoire la ci Sénégal parce que lii dafa ñaaw lii dafay ñaawal euh, kii yu Sénégal daal image yu Sénégal lii da koy ñaawal parce que lii dafa ñaaw ñaaw goo xamante ne nii kenn am na am na tàmbali mais amul commencement parce que man version yi kon ko bari na bari na man fi ne nii déglootuma benn version tribunal rek laay xaar version. ñoom rek ñoo jar a déglu ndax li wër te wër ñoo la ko mën ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw man kii yëngu ma dara ba tribunal waxee nag ba pare ma doog xam ne nag yàlla rek mooy buur te nit nit tamit lëndëm na nit kon géej nit kenn mënu koo xam fajal nit kon géej nit moo lëndëm nit moo soxor nit moo bon ndax lii ku koy def ku nekk nekkoo nit ku baax ku xalaat lii it baaxoo bàkki allah ji fàllu mbàkke lu ñaaw moo am tiim sa nawle di ko def tiim sa nawle jël ay paaka di ko ko jam ndax alalu àdduna tam nekk euh, nu mu tëdd sax góor yàlla kon yow mu nekk góor yàlla kon yow di daw rek di yóbbul yaayam di daw rek di yóbbul yaayam yaayam jee nga xamante ne xamul lu du doomam ji yaa ngi dégg mu war a toog téye yaayam fu mu toog di di wax ci yaayam di jooy ñu def ko nii ki ko def nii billaahi yoon dañoo waroon a may ñu teg leen fii tëli bi rek ku nekk rek di def sa wàll bàkk sëñ Fallu billaay loolu rek la nu waroon a may rek parce que lii dafa ñaaw Aziz dabalaa dafa baax Aziz dabalaa day bégal nit Aziz Dabala daa bégal nit ñi ba sonn te nit ñi bégaluñ ko rey ko loolu rafetul jërëjëf jërëjëf muy kàddu yoo xam ne yu am solo la yu mu rotal tey jii muy doy kii dañ wax dama bëgg nit muy wax ñu wax ci ci wax ci lu mu maîtriser wax ci lu ñu xam parce que ay kilifa dañu ni seetaan te Dakar ba du site bu ndaw boo xam tam ku jóg ñu tàllale micro bi Dakar ba day xool ku responsable mu dékk la micro nga wax parce que du da war a wax rek da wax Dakar man boog liggéeyu ma noonu bu la neexee ma jox leen seen i micro man ay kilifa dañ may déglu di ma seetaan li ci mën di dégg daal mooy que ni ñun xamuñu fekkeewuñu ku ci ñëw nag te nekk responsable dina la jox suñu micro nga wax sa yar ak teggin ndax lii kenn mën la cee wax dara lu dul ki nga xam ne ñoom ñoo yor atte bi ku ci wax dangay ngay làmbatu te lu nit di wax na ko xam bëgg a wax bu mu tax nga wax loolu wul bu ngeen bëggee ma jox leen yeneen micro waaye man fàttali sama micro bi Dakar wax ay euh, waxi kilifa lañ mooy dëgg bu boobaa sax gis nga tey ñi am na ñoo xamante ñun bu ñu leen tàllalee micro uh-huh. ñoom xamuñu leen mais ñun ñi nga xam ñun ñooy waxi ki feeñ ñun xam nañu dinañu ne kat waaw diw lii ak lii ak lii pourquoi loolu te waaw yooyu ñun duñ ko def uh-huh. d'accord d'accord yow kaay soxna si ah. soxna kaa kaay ñaar faat noo tudd non man maa ngi tudd Maguette Sow Maguette fan nga dëkk maa ngi dëkk Guédiawaye ah, sa gis si say ci lii xeexoo bi am tey ci banlieue bi rawatina ginnaaw raay non metti na torop metti na torop Aziz ku ko xamul sax affaire bi metti na la mais pourquoi ka Leye man daal gëmaguma ko daal parce que nabulay Leye laa gën a ràññee sax ka Aziz Dabala mais pourquoi Nabou Leye man moom affaire bi moom non gëmaguma ko daal gëmaguma ko tant que kii waxul ba ñu xam ne ni dëgg la ñoom ñoo wax gëmaguma ko mais pourquoi Aziz moom affaire bi métti nañu ñëpp métti nañu. d'accord si teewuñu kenn teguñu kenn wu neewuñu kenn moom la li ma la waxoon laa cee waxaat amuñu droit sa wax ni diw soupçon la. Mm-hmm. liberté wu ñu teg loxo ñu ngi bàyyi procureur def liggéeyam. bu pare li ci war dina ko ci def mais tey bu fekkee dem na ba jàpp ni ñii ñoo def lii daan bi lan nga xalaat ni mooy daan bi. non bu fekkee jàpp nañu ñii moom kaa ñoo rey Aziz Dabala bu man bu doon man sama man rek ñu rey leen parce que police bi da nga ciy tëdd ay 3 ans quatre ans yaa ngi may dégg nga ñëw génnaat nekkaat ni nga mel am yaram xam nga police bi léegi lépp ci am da ngay wasap da ngay lekk da ngay naan bu fekkee tamit leer na leen ni ñii ñoo rey Aziz pour man sama xel bu a war a daal. parce que Aziz famille la famille lan rey daal moom laa bëgg waa bu leeree ne ñi ñoo rey Aziz Dabala nañ leen def na noonu tamit. d'accord yow tey ngay doomu aadama nga gis mbooloo mi leen indi ak sécurité bi li est-ce que dara àdduna jar na lii. non jaru ko jaru bi police bi rombee léegi sama xol bi dama barke yàlla ma jooy parce que lii jaru ko lii jaru ko. merci yàlla sàmm te yàlla gën noo taxaw te yàlla muccal nu képp ku ci amaat kàddu yooy wax rek nga wax ko ci ak teggin ndax Dakar Buzz wax naa leen ko ay kilifa koy seetaan. ay dit ñu responsable ñoo koy seetaan kon booy laaj laaj ay ñu ñu daal ci tribunal bi ñu ngi leen koy toppal nag xam nga ci li ci mhm. mooy am na habitude di ko wax ni mhm, mhm. comme ci li nga xamante ni sujet bi ñuy wax c'est pas parce que ñoo nekk ci micro yi ñoo leen gën a xam ni ñuy wax déedéet am na ci ñoo xamante ni ñoom ñoo ñu gën a sori di ñu seetaan te ëpp ñu xam-xam bu baax ci li nga xamante ne ñuy wax ñun kay leen lanu mën mooy toppal leen li nga xamante ni moom moo xew te li xew it li nga xamante ni noonu lañ ko gisee noonu lañ ko déggee noonu lañ leen koy waxee faruñu fii faruñu fële kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy internet yi ñoom it nañuy dawal compréhension yi ci loolu tey am xalaat bu rafet ci ni lépp loo xamante ni def nañ ko fi rek mooy li nga xamante ni mooy mooy amaat bu ma sañoon man tey kenn du wokk dara kenn du kenn du am problème suñu borom noonu la ma bindee waaye jaam ak pexam yàlla ak dogalam problème bi nag euh, version yi bari na problème buy détails yi bari na kenn ku ne ak fi ngay waxee mais bëgg naa lu nit di wax na ko xam lu nit di wax na ci teg bëtam ndax benn góor gu baax dafa naa wax na ma faalal loo tegul sa bët bul ci wax te bari na ci génne génne si génne seen version yoo xam ne maîtriser wuñ li ñuy wax nanu bàyyi yoon def liggéeyam man xaw ma ki def ak ki deful yow xamoo ki def ak ki deful li koy firnde waaw keroog bi ñuy yëg xibaar bi ñun ñoo nekk ndawoon Touba ñu ngi woon fii ci Ndakaaru waaye it jëm nañ leen toppal li nga xamante ni moom mooy fee bi ca ca bañ ko yëgee ba jamono jii ci buñ ko yëgee ba jamono jii nag mooy lan mooy ñëw nañu jéem a dem ci kër yi nga xamante ñoom ñoo concerné comme yaayu Aziz Dabala comme frère Aziz Dabala comme sœuru Aziz Dabala ak jege jegeñaal yi nga xamante ni xamoon nañu leen ak Aziz Dabala ñoom it biñ demee defuñu fa lenn audité wuñu enquête ñu lu dul lan mooy seen digganteem ak Aziz Dabala lan ngeen mujj déggante ci Aziz Dabala yan fee moo la gën a marke ci Aziz Dabala yooyu lañu ñëwoon te loolu mooy suñu rôle te yaakaar naa ne loolu ci la nekk yaakaar naa ne boobu léegi amu ci benn vidéo bu nu dugal boo xam ne rek di ko seetaan daan ne wax lii la bi man sama responsabilité la nekk mhm. du ko tàllal képp kuy wax waxi dof mhm. du ko tàllal képp kuy wax waxoon ne yow tegu ko fen ku responsable mhm. ma tàllal la ko parce que ay kilifa may seetaan ay responsable ñoo may seetaan di ma déglu bàyyi ma xel te nag nit koo xamul xamaano ko tàllal ko sa micro mu wax waxi dof waxul waxi dof yow yaa wax waxi dof ndax yaa ko tàllal micro bi te Dakar bu noonu man ci kilifa la boo di kilifa da ngay baytu ci ci ñu baaraam ba dolli la mooy comme nii nga xamante ni ñu ngi ci buntu tribunal bi am na ci ñoo xamante ni mun na nu mel ni yow solu mel ni yow et pourtant bokkuñu sax ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan wi bokkuñu sax ci li nga xamante mooy xam na lañu doon mën nañu doon ñenn ci ñi nga xamante ni la doon mën nañu doon ñenn maanaam dañoo war topp li nga xam moom mooy moom mooy enquête bi de telle sorte que dinañu ñëw waxtaan ak yow xam nga yooyu sa ay clé la yoo xam yoruñu ko génnee ci genre kii yu mel nii voilà mais daal on est conscient de ci yooyu ci am solo ku yebu réglé ku yebu kaay ñaari baat yow en tan que doomu ginnaaw raay kaay kaay kaay ñu pelloo fi kaay soxla naa la parce que yow fi feebe yow yow ku jege fi nga dëkk sorewul sorewul ak ak ak fi amee tey euh, maa ngi lay nuyu di la jaar. Euh, waaw doomu ginnaaw ñun ñëpp ñuy doomu ginnaaw raay lii am ci sunu gox. waaye tey dañuy dégager loolu lépp wax en tant que être humain yow bi nga yëgee lii en tant que doomu aadama euh, loo yëg. waaw Fadel maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre fu ñu mën a nekk ci biir réew ak bitim réew Fadel muy lu tiis loo xamante ni man keroog. Euh, bi ma koy yéeg dafa fekk ma takk sama saak ba pare rajo yebal ma pour ma war a dem couvrir ji màggalu Touba. mais selon bi ma egsee fi nga xamante ni mooy passerelle bu ginnaaw raay noonu dama dajante ku ñuy wax euh, Samba Nguer euh, di fecckat ma nuyu ko ma gis kanam gi sévère. ma ne ko mais Samba yow sa kanam gi tey dafa sévère de mu ni ma noo dafa am lu ma dal lu ma yëg luñ ma wax nii léegi nii ma ne ko lan lan lañ la wax. mun ma noo sama doomu ndey lañ ma wax nii ma dafa dafa dañ dañ ko rey ma ne ko kan mu ni ma. mu ni ma Aziz la ma ne ko non loolu munul nekk du dëgg fekk boobu maa ngi xool sama mu nekk 22 heures nangam selon ma ne ah kon information bi du dëgg naa continuer dem euh, dem dem fële Touba fekk ma waroon na dajeeg équipe bi buntu Pikine mais bi ma ñëwee buntu Pikine Fadel li gën a garaaw dafa am benn waay bu doon bu doon déconné foofu toj benn verre selon bi mu tojee benn verre ma xool foofu gisuma fi benn om de tenue si laa daal di woote ma ni xaaral ma woo commandant ndax comme fii ñëpp dañ fiy daje te màggal la te gisuma sécurité kon naa woo commandant moo ma woo commandant si la ma expliqué ni ma ñun dañu nekk technopole ma ne ko lu xew technopole mu ni ma non expliqué ni ma dafa am ku ñu assassiné fii si la door a gëm information bi selon foofu nag dama dénkaane euh, sama saak pour dem xool technopole lan moo fa xew parce que journaliste bu ñu ko waxee information li li liy devoir am mu dem xool lan moo xew ak nan la ko mën a traité mais bi ma demee la ma gis euh, ba ma ñëwee fekk naa ñu dugal euh, benn corps bi damay ñëw fekk sappoor di dugal benn koor mais muy lu metti loo xamante ne tey Aziz maam moom ñoo dëkk boo xoolee sama digganteeg Aziz matul 500 mètres suñu kër yi nga xam ni nga xam ni moom nit la koo xamante ni nitu nit la woon mais man du Aziz jooyuma Aziz gaa parce que xalaxal moo tawal xayaate yàlla loolu la wax mais waajuram wu góor mère um, waajuram wu jigéen ummi mbay moom laa gën a ñeewante ci yëf yi ndax bi yëf yi amee ba léegi vraiment wax dëgg yàlla te xam nga dafa xaw a tawat te yëf bi mu amee ba léegi lekkut naanut ci koo xamante ni sa doom dal doon defal lu baree baree bare muy tiis boo xamante ni dal na ci Sénégal mais dal na askanu ginnaaw raay noor mais daal li ma ci wax euh, Fadel mooy nit ñi nañu xam ni ñun ay doomu aadama lañ si yàlla la ñuy jóge ci yàlla la ñuy dellu doomu aadama du du mooy rey yàlla mooy rey mais na ñu bàyyi nit ñi nañu war a bàyyi suñu waxee ñaari baat ñetti baat ñu génnee paak loolu moom lu ñu war a lu war a interdit la et puis Fadel ñuy interdit ñuy jaay armes yi ci mbedd yi loolu dañ ko war di interdit selon bu boutique yi ak yeneen yi nga xamante ne da nga nit day mën a ñëw léegi rek jënd arme léegi rek génn gaañ fi nit léegi loolu loolu c'est pas normal warul am dañu war a def gis nga fu mu toll nii nañ ci def justice boo xamante ni justice bu ñoŋ lay doon ndax euh, lu mel nii mu bañati fee am ndax selon euh, fan yaa ci ginnaaw ma ak yow déggante nañ ci benn meurtre xam nga meurtre meurtre bi indi. daanaka ça fait même pas ça fait pas dix jours beneen am.